di ab jàngatkat ci lépp luy xew fi la ci réewum Sénégal moom lañ fas yéene seq waxtaan bi dina bëri poñ yoo xam ne dinañu ko waxtaanee bu ci yàlla àndee waaye laata loolu rek ma daal di ko bàyyi mu nuyuwante ak yéen sëñ Mansour asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu sëriñ Babacar donc may nuyu ñuy seetaan ñëpp di nuyu euh, di baalu ak Sénégal yi moo xam fii la nekk moo xam ci diaspora bi parce que c'est la quinzième région laa diaspora. tout elle est importante bi may ñëw nii am na ko ma naan man tur maa ngi lay suivre à partir de Paris donc euh, am na ñoo xamante ne période bi dañuy ñëw vacances ba pare ak contexte bu mu tombeel ñëw pour fekkee parrainage yeeg yooyu noonu yëpp donte fële it tamit voilà foo mën a nekk daal moom boo Sénégal amee représentation diplomatique ak yëpp bindoo yooyu yëpp donte weesu na sax waaye day gën a neex nga ñëw ci sa dëkk fekkee fii yëf yi daal parce que bi yoon moom wax dëgg na yàlla yëf yi moom intérêt bi mu suscité sax dafa mel ni Sénégal bu ngi soog a def élection présidentielle donc euh, ñuy baalu ak képp koo xamante ne bii wax nañ loo xamante ne bii dëppoo ak sa xalaat euh, wala euh, nuñ koy waxatee waxin wi. Mhm. mën na bañ a dëppoo sa xalaat sax mais waxin peut-être heurté la. Mhm. nga xam ne loolu c'est humain donc nous comptons. pour remettre les compteurs à zéro sur de nouvelles bases quoi voilà. mbokk jërëjëf euh, yàlla na sunu borom nangu ñaan ni nga ko waxee. nangu ñu tabaski. allahumma amiin ñu teewekat yu bari hmm. alors euh, sëñ Mansour euh, waxtaan bi ñu koy doyee xëy na ak li nga xam ne am na fi gannaaw bu ñu tabaskee ba noppi. muy njiitu réew Macky génn wax ak askan bi. ni mu ko annoncé rek laata ñu ciy dem li nga xam ne nag moom la ci Sénégal yi gën a retenir muy lim ne jël na décision ne élection présidentielle yu 2024 moom du ca nekk candidat. alors euh, déclaration boobu ci genn wet gi am na ñoo xamante ni ñu ngi ko cay félicité jàpp ne c'est historique beneen wet ba am na jàpp ne c'est un non événement alors yow ak le recul ban analyse nga ñuy defal exactement sur cette décision du président de ne pas briguer un troisième mandat. l'historici l'historicité mmh. de sa non candidature se réside dans le fait que dafay présenter wu. Euh, le fait que par exemple élection présidentielle day am alors comme moom du ci bokk dafay jouer le rôle de d'organisateur premium c'est-à-dire wax na ko gouvernement bi nañu fexe ba organiser élection yoo xamante dafay transparente moom euh, dina nekk arbitre mais aussi tamit dafay bokk ci jeu bi parce que il faut ñoom ñu choisir candidat donc euh, loolu mooy le premier niveau de lecture beneen lecture bi mais moom waru cee mën a bokk parce que bind na wax ko wax ko ay yooni yoon ay ministère wax ko ay yooni yoon léegi nag ñoom jàppoon nañ ni voilà quoi comme constitution bi dafa wax ne la durée du mandat est de cinq ans ñoom ñu am sept jàpp ni moom peut-être euh, cinq moo ëpp sept te loolu Macky Sall maa ngi fàttaliku 2011 jàmmalaay daf ko ne woon Abdoulaye Wade faw nga sëlmal parce que 7 plus 5 égale 12 julli it juróomi kàbbar la ràkk bu njëkk bi non juróom-ñaari kàbbar ràkk uh-huh. ñaari juróomi kàbbar faw nga sëlmal waaw parce que wax nañ la subhanallah donc moom gars yi artu nañ ko ci subhanallah mu dégg jamuj bi sëlmal donc euh, fi mu nekk nii moom euh, loolu moom suñu gannaaw la nekk beneen bi ñu ko ci doon félicité mooy par exemple l'horizon politique sénégalaise quand même était vraiment nuageux ombrageux donc le fait que moom mu wax nekkatul candidat de façon de en fait de façon officielle loolu dafay euh, comment dirais-je encore tekki yi ñi nga xam ne dañoo tënk woon waaw ah, daf leen di tinki loolu moo tax euh, ici et ailleurs les gens l'ont félicité mais c'est pas quelque chose boo xamante ne bii voilà quoi c'est parce que c'est trop extraordinaire bu dee am na li ci extraordinaire mooy est-ce que président Macky Sall est aujourd'hui capable d'organiser une présidentielle boo xamante ne du ci bokk même am na ci intérêt mais mu jaar yoon ba ñëpp bokk foofu lañ koy xaar loolu c'est le défi donc l'un dans l'autre ok certains l'ont félicité ici et ailleurs mais aussi tamit am na ñoo xam ne ñu ngi koy xaar sur l'angle du dé en fait du défi mu mën a organiser élection am ci intérêt yaa ngi dégg ba pare aussi tamit ci procédure bi électorale bi moom du ci euh, comment dirais encore influencé mhm. pour son propre compte et pour le propre compte de son camp euh, loolu mooy li nga xamante ni mooy le défi majeur bi nga xamante ni bi présidentiel bi moom am na ko donc euh, bu dee am na sooxe les gens vont dire que waaw c'est parce que il n'est pas candidat bu dee amul sooxe les gens sauront que ni véritablement effectivement euh, am na am am na ci intérêt am na candidat mais terewul yëpp déroulé na ko pour mu sénégalais yëpp euh, ne ko euh, pour sénégalais yëpp daal en réalité gis ci seen bopp nga xamante ni du am ay crise post électorale comme ni ñu ko gisee en Afrique donc c'est ça la vérité quoi kër gi loolu la. d' mais bu ñu dee ñu la déggee bu bu baax kii di président Macky Sall ndax décision bi mu jël euh, parce que moom nee na c' est une décision ba nga xam ne daf ko jël di ko assumer amul benn contexte bu ko ko euh, bu ko ko dicté loolu wute lool ak li ñu li ñu bëri wax notamment son principal opposant Ousmane Sonko ñu ñëwaat ci interview am ak France 24 nee na le président de la République dafa cédé face à la pression populaire est ce que yow jàpp nga ne décision bi. le président Macky Sall jël ne du présenté en 2024 dafa nekk un recul face à une forte pression populaire non pression moom am na ci parce que moom moo wax ne j'ai après avoir longuement et mûrement réfléchi xam nga ku la wax loolu moo lay wan ni mbir mi exclure ko woon au début boo ko exclure woon au début Omar Ba le président de m association des maires du Sénégal du dajale moom ay naataangoom ne leen kaa leen dem seeti Macky xamal ko ne ñun moom mooy suñu candidat mu recevoir leen le premier le trois mu ne bokk ko ma donc muy ngi woon ci xel bi pression am na ci contexte national am na ci contexte sous régional am na ci contexte géopolitique am na ci. mais moom euh, bu ñu déggee président nee na amul benn contexte boo xam ne euh, joué na ci décision bi mu jël euh, amul benn contexte bu ko imposé notamment bi ñu conclure dialogue bi je pense foofee la ko waxee woon sax. ne savoir lire entre les lettres les voyelles les consonnes les lignes les paragraphes. ça veut dire que Macky Sall moo la gën a xam ni. boo waxoon troisième mandat. bac bi ci boppam. sa allait être compromis loolu moom xam na ko. donc euh, bu ko neexee mu taxaw. du fait de sa stature de président de la république ne awma benn euh, ni ngay waxatee awma benn euh, pression du ko wax parce que loolu bu ko waxee c'est comme si il y laisse une face nest pas de sa une partie de sa fonction loolu du ko def du taxaw ne man pression moo tax ma dellu gannaaw danaan daman jàngat dama xool dama saytu xam nga info yi am wala et cetera donc finalement respecter sama parole damay bàyyi pour respecter sama parole mais en réalité ñëpp xam nañ ni 2011 bu doon mooy 2023 Macky Sall def troisième candidature ñëpp xam nañ ko. ah bon waaw ah <laughs> bu doon 2011 mooy 2023 non non non kon Macky Sall def troisième candidature mais mais amul intérêt c'est-à-dire y a pas un intérêt à ce qu'il reçoit des maires. Abdoulaye Wade la 14 juillet 2011 hôtel des Almadies dafa recevoir ay élus locaux samp candidature am même cause même effet yaa ngi dégg. amaana sax am na gu euh, élu yoo xamante ne bi ña nga woon ca ba keroog le premier juillet rek 14 juillet ñu ngi woon fële 2011. tout à fait mais est est dalal boobu aussi mënuñu ko mënuñu ko mën na bañ a nekk ci beneen angle. parce que kii di président ñu ngi fàttaliku rek euh, bi muy mujjee jaar Paris discours ba mu fa defoon ñu bëri dañoo jàppoon ne euh, déclaré na quasiment li nga xam ne mooy mooy candidat waaw loolu euh, est-ce que duutoon pour rassen remobiliser les troupes pour waajal équipe am ci jëm ci élection yi gën a mën a bett gaañu ñoom bu ñu yaakaar ne mu ngi waaj candidature am fekk mu ngi ci leneen de toute façon ñaari waajtaay yëpp moom bu sañoon finalité bi benn lay doon mooy moom mu am ndam soit moom wala candidat boo xamante ne ci coalition am lay lay jógee dafa wax nous allons nous maintenir au pouvoir keroog lors du set mu ne leen carrément bu ngeen ma toppee dinañ am ndam on peut dire que c'est une nous dans le jeu avec JE ou bien avec JEU jeu politique le jeu électoral mm-hmm. yaa ngi dégg mm-hmm. comme c'est un jeu dans le nous l'un n'exclut pas l'autre président bu ko neexee mu ne man aw awma benn pression mais moom xam na mm-hmm. fan la Sénégal toll xam na ci loo xam ne man xaw ma moom xam na présentement nii lan la ko sénégalais yi may ak luñ ko mayu trois mandats moom dafay jeex ci réew mi dafa leen ñaari mandat juróomi at bu wóor la ne sax benn mandat bi boo convaincrewul yow doo am fir sax taxaw di laaj deuxième mandat mais loolu mooy dëgg mais munoo fee def douze ans après léegi say nit dajaloo et cetera la kaa ñu dem wuti troisième mandat yow ngay ñëw taxaw jàkkaarloo Sénégal yi mais loolu c'est pas possible possible moom dafa reculer sax avant nit ñi avant ni ñi di wàcc ci mbedd mi ay plateforme la nit ñi créé F24 mhm. jàmm gën troisième mandat ay plateforme pour artu ko ay piqûre de rappel mu teel reculer est-ce que du ñooñee ñoo nekkoon rek peut-être di ko jiiñ loo xam ne nekkul woon ci ci bopp bi euh, parce que moom président na mu waxee woon euh, dina sàmm kàddu tey jëlee ñëw na jël décision la moo waxoon bindoon ko ci téeréem waxoon ko fu bëri ne troisième mandat duñ ko ci dégg loolu la féddaliwaat est-ce que du ñooñee ñoo amoon seen benn perception rek ci mbiri lu wutee loolu ak li nga xam ne mooy décision bu président président Macky Sall musul taxaw ne lii musul nekk sama xel keroog waxu ko dafa ne après avoir longuement et mûrement réfléchi wax joo xamante ne mi ngi ci sa gannaaw doo ci toogaat di ci xalaataat longuement et mûrement déedéet doo ci taxaw di man daal gëm naa ni. Mhm. xam na ni yëf yi na ci moom jate na ci réew mi virage bu ñuy négocier la boo xamante ne bii bu ñu gérer wul embrayage bi bu baax. Mhm. oto bi fa dali du neex kenn mu ne xaaral ma bàyyi leen ak seen yëf organiser ay élection Sénégal yi nag ne ko aussi na ñëpp bokk bu ñëpp bokkee su ko defee yow di nga mën a am retraite bu dal dal xel loolu mooy dëgg de. ñëpp bokk yaa ngi wax mbir mi cati cati bu lool. Euh, bu fekkente ne cati googu ñu ngi koy wax xëy na xel dina dem ci ki nga xam ne aussi mooy Ousmane sonk ak situation bi mu nekk. Hmm. Euh, président Macky Sall renoncé à sa troisième candidature mais su fekkente ne tey ki nga xam ne moo di Ousmane sonk nee nañ du bokk ci ci présidentielle yu 2024 est-ce que dina tax xëy na stabilité bi nga xam ne ñu ngi koy njort di ko wut ci réew mi ñu ñu mën koo am carrément. Sonko moom bu bokkul wax dëgg neex yàlla hmm, mën na jur loo xamante ne ni duñu neex ñun ñëpp. te dimanche bii le 9 bu élection présidentielle amoon Sonko ci bokk amul benn dossier boo xam ne dañ ko vider. et de façon définitive. Mhm. ñu ne ko yow mënoo bokk amul. tout à donc ñoom ñooy def seen préparation psychologique rek di waajal xel nit ñi pour ñu teel a nangu consommer digérer ñàkk bokk Sonko. troisième mandat xeexaguñ ko xeex yi fi am te Macky Sall taxaw wax ko keroog ci discours am muy mars deux mille vingt et un ak juin deux yëpp. benn nit lañ bëggoon alak ci wàllu politique Sénégal lay taxaw troisième mandat xeexaguñ ko mësaguñ ko xeex déedéet justement d'où l'intérêt de la de la question parce que suñu gisee événement majeur yi nga xam ne moo yóbbu dëkk bi ci b dëkk yi ci b ci benn situation la wax rek mooy mars 2021 ak juin mm. te ci discours président de la république dañoo dégg mu ne euh, li nga xam ne moo ko dese chantier euh, bi gën a majeur mooy faire respecter